maam Saliou Fall maam Saliou Fall mi ngi fee jamono ci atum 1859 ci dëkk bu ñuy wax njari wàqi njari wàqi nag mi ngi ci département bu Kébémer ci région de Louga moom maam Saliou Fall nag doomu sëriñ Ahmadou Roqeya Fall la ak ku ñuy wax soxna na bu Njaay moom sëriñ Saliou Fall nag am na ñu bokkal soxna soxna di na bu Njaay ñu mën cee ràññee magam ja maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ibnu soxna Seynabu Njaay ibnu sëriñ Ahmadou Roqeya Fall ak moom moomu di maam Saliou Mouhamadou Rokhaya Fall ibnu soxna Seynabou Ndiaye ñaari bant yooyu nag la soxna bu Ndiaye am ak kii di sëriñ Ahmadou Rokhaya Fall ginnaaw suñu Ahmadou Rokhaya Fall nag soxna bu Ndiaye nag bàyyi kon nag ci dëkk boobu di njare wàqi dem ci dëkk bu ñuy wax njóobeen am fa ñuy wax soxna Assu Diop bintu sëriñ Abdou Khadir Diop ak kii di soxna bu njaay kon maam Saliou Fall kenn nag la bokkal waajur wu jigéen ak waajur wu góor muy maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ak kaneen kum bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor muy soxna na bu Njaay bintu sëriñ Abdu Xaadir Jóob soxna Assu Jóob mii mu bokkal waajur wu jigéen te bokkuñu waajur wu góor nag bi mu matee dem kër sëriñ Daaru Asan Njaay lañ ko jébbaloon bokkoon nag ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ba tax na sëriñ Daaru Asan Njaay am na ci njaboota ñu mën cee ràññee ku ñuy wax sëriñ Moor Assu Jóob Njaay ibnu soxna Seynabu Jóob ibnu sëriñ Daaru Asan Njaay sëriñ Moor Assu Jóob Njaay mi moom meññ soxna Bintu Njaay Baay Faal ñooñu nag la bokkal waajur wu jigéen moom alxuraan nag bi matee dal nag lii di alxuraanul karim nijaayam sëriñ maam njaay faatma lañ ko jébbaloon nag mu dalal ko nag lii di alxuraanul karim waaye nag maam saaliwu faal nag mokkaliwu fa nag lii di kaamil bi téereb suuf bi dong nag la fa jot a jàng nag daa dafay bàyyi ko ñu yóbbu ko nag ci daara ju ñuy wax tay ba xaay ginnaaw tay ba xaay googu nag demaatoon na ci jeneen daara ju ñuy wax tay ba mbay ginnaaw tay ba mbay googu nag yóbbuwaatoon nañ maam saaliwu faal nag ci njàmbur ci kër sëriñ moor abdu sëy ngir mu wéel fa nag am njàngam ginnaaw ko sëriñ moor abdu sëy googu ci Tayba Ndakaar ginnaaw Tayba Ndakaar nag maam Saliou Fall nag demoon na nag ci daaray sëriñ muttu fa mbombe ginnaaw daaray sëriñ muttu fa mbombe daara ji maam Saliou Fall mujjee jaar nag mooy daara ji nekkoon ci Tayba Sayar daara jooju nag la mujjee jànge nag mu daal di delsiwaat nag ci loxoy nijaayam muy sëriñ maam Njaay Fatma booba nag fekk na waajurum wi di sëriñ Ahmadou Rokhaya Fall nag génn nag lii di àdduna mu wéy nag nekk ci loxoy nijaayam ba ni yoonu murid taxawee ci atum 1883 magam ja nag maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul murid dina nag ñëw jaay jaayante nag ci yoon wi nekkum murit nag ci ginnaaw kamu yaakaar di xaadim rasuul ginnaaw bi nag la maam Saliou Fall ñu itam jaayante nag ngir topp si nag bëgg-bëggu magam boobu fas yéene itam nekk nag murit bu dëggal itam ci ginnaaw xaadim rasuul mbàkke kajoor nag la jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim sëriñ tubaa seexul xaddiim ginnaaw bu maam Saliou Fall jaayantee ba noppi cheikh ibrahima saar njaañ la ko jébbaloon ci loxoy cheikh ibrahima saar njaañ nag la muritoo nag ba jot ngërëmam ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul seexul xaddiim xaadim di dem ci géej gi mi ngi ci loxoy cheikh ibrahima saar njaañ nag ci dëkk boobu di njaañ fa la nekk nag ba ni sëriñ tubaa seexul xaddiim jógee ci géej gi ci atum 1902 seexul xaddiim itam moo ko boole woon ak cheikh ibrahima saar njaañ ginnaaw bu mu jotee ngërëm nag ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la fekki nag magam jooju di cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina booba cheikh ibrahima fall nag mi ngi ci dëkk boobu nag di Cees ba tax na maam saaliwu fall amoon na kër sax ci dëkk boobu di Cees waaye kër ga nag jamono ji may waxee yéen nag nekkutu nag ci loxoy njabootu maam Fall waaye dëkk boobu di Thiès moom maam Saliou Fall amoon na fa kër ginnaaw Thiès itam Ndakaaru Njaay itam amoon na fa kër amoon na kër itam ci dëkk bii di Ndand dëkk bu ñuy wax Ndey itam amoon na fa nag lii di kër amoon na kër itam ca Puuta waaye kër googu mu amoon ci Puuta itam nekkul ba tey itam ci njabootug maam Saliou Fall ak kër gi mu amoon itam ci njaareem ak dëkk bii mu gor nag di Daarul Xafoor Daaru Xafoor googu mu gor sax soo demee ci téere bii di jasaawu sakkoori jéeri ji te Cheikh Moussa Ka bind ko ma ngay wax na kii di maam Saliou Fall nag gor nag dëkk boobu di ginnaaw bu sëriñ tubaa seexul xaddim bàyyi ko daaru marnaan nag di dem nag gànnaar dafa jaaroon nag ci dëkk boobu di daaru xafoor ginnaaw bu mu jaaree nag foofu nag di daaru xafoor seexul xaddim nag def na fa nag ab diir nag bu xaw a yàgg nag foofu nag di daaru xafoor diir bu xaw a yàgg boobu nag naafile nag lafa fa seexul xaddim doon def fa loola itam taxoon na maam saaliwu faal ngir barkeelu ci diir bi seexul xaddim defoon ci dëkk boobu di daaru xafoor loola itam moom moo tax itam bi mu demee bay gorub dëkk mu dem gor foofu di daaru xafoor moo tax soo demee ci sàkkooru jéeri ji Cheikh Moussa Ka ma ngay wax ne maam Saliou Fall nee na daaru xafoor mat nab dal loola itam tax na bi maam Saliou Fall goree foofu mu yobaloon fa doom ji di sëriñ Moodu Saliou Fall ak sëriñ Tayba Ñang ndax soo demee ci jasaawu sàkkoor noonu la ko Cheikh Moussa Ka waxee ginnaaw bu ko baax ki sëriñ Touba Seexul Xaddim jógee nag ci géej gi ab diir bu néew nag la fi def amaat fa takk-takk ak mbaaxaan demaat nag ci réew mi di gànnaar gànnaar googu nag kii di maam Saliou Fall dem na fa waaye yabalaat Fall ci ndigalul seen waajur woowu di maam Saaliwu Fall ngir ñu it ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim ay addiya ginnaaw gànnaar ca yéen jolof ca yéen jolof itam sëriñ Saaliwu Fall daana fa yónnee ginnaaw ca yéen jolof njaareem njaareem googu sax sëriñ Saaliwu Fall dëkkoon na fa ak Seexul Xaddiim ba quartier bi ñu tudda Kër Cheikh sëriñ Saaliwu Fall moo ko gor waaye nag magam ji di maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Baabul Muridiina lañ gën a miine quartier la turu woowu moomee di Kër Cheikh waaye nag ma wax leen lan moo ci jotale ma faal lamp baabul muridina ba quartier boobu sax di wuyoo kër cheikh ginnaaw ñoom ñaar bu ñu sañcee fekk si ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ci dëkk bu sell boobu di njaareem muy maam saaliwu faal ak magam jooju di cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina cheikh ibrahima faal làmp baabul muridina quartier bu tuddoon màkka looy nag la sancoon nag ci njaareem sëriñ saaliwu faal dem sanc foofu nag di kër cheikh waaye nag fi maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridina sancoon nag di màkka looy looy dafa amoon bis nag feebar bu metti nag amoon foofu muy feebaru jàngoro pes bi daloon itam lu bare bare bari ci njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ba ci sax maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina moomu sax ci boppam muccul woon ci feebar ba kii di sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke xabbaan moo ñëwoon ziyaare si seet si waale mbokkum taalibeem boobu di maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ci feebar boobu ko daloon ak taalibeem yooyu ci foofu mu nekkoon di màkka loy loy ginnaaw bu ko Cheikh Ahmadu Ndumbe xabbaan seetee ba noppi nag la dem nag ziyaare ji ko baax ki Fall daal fee mu nekk itam metti na lool ci moom te itam sax moom laa seeti woon naka ni démb wala bërki démb ginnaaw nag bu ko sëriñ Ahmadu Ndumbe Xabbaan yëgalee nag jafe-jafe yooyu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina nag di dund ci quartier boobu mu nekk di màkka loy loy Seexul Xaddiim sàkku woon na ci maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina mu jóge ci quartier boobu te dem nag fekki rakkam jooju di sëriñ Saaliw faal ci foofu mu nekkoon di kër Cheikh ginnaaw bu Cheikh Ibrahima Fall wéye leen ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa Seexul Xaddiim ba jëfe ko la maam Saaliw ngërëm googu nag mu amoon ci kër cheikh jébbal ko cheikh ibrahima fall ñu daa wax kër cheikh ibra kër cheikh ibra googu ko quartier ba maam saaliyu fall itam ginnaaw bu mu tuxoo ci këram googu jox magam jooju cheikh ibrahima fall addiya dafa sancaatoon ca wet ga wala wutaatoon ca wet ga kër waaye kër gu mag ga tax ñuy wax kër cheikh ibra maam saaliyu fall mooy ki ko goroon feebar boobu amoon ci njaareem moo waral cheikh ibrahima faal jot ci quartier boobu di kër cheikh ci ndigalul ku baax ki sëriñ tuba seexul lu ko joxoon ne ya saaliwu faal ginnaaw bu mu ñëwee nag ci ndigalul ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim la ko maam saaliwu faal fopp kërug boppam jox ko comme ñaari kër yi ñoom ñoo fa nekkoon ñuy wax kër gee kër maam saaliw di wax kër gee kër cheikh kër cheikh googu nag moom mujj wéy nag ca quartier ba ba bi ñuy loti sa njaareem ñu fab tur woowu tudde ko quartier ba waaye ca cosaan moom sëriñ saaliwu faal la ginnaaw kër cheikh googu nag wéy na nag di taxawal ay yi daara ngir nekk fay liggéey ànd ak nag ñi ko topp ngir xaadim rasuul ñu ngalgu daara jooju mu amoon ci kër ngalgu taawam bii di sëriñ moodu saaliw faal sax foofu la feeña jamono ak sëtam bii ñuy wax sëriñ cheikh moodu saaliw faal moom maam saaliw faal itam amoon na daara ci nooto amoon na ci dëkk bu tudd ndey maam saaliw faal itam amoon na daara itam ci dëkk bu tudd ndiireen maam saaliw faal itam amoon na daara itam ci dëkk bii nag di puuta ak dëkk bii mu goroon nekkoon fa di daarul xafóor itam amoon na fa daara ci daara yii nag la nekkoon di liggéey di tarbiya lépp loo xam ne tukkee na fa nag mu it ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim nag ak ñi ko yàlla booleel ngir xaadim rasuul ba ni mu génnee àdduna ci atum 1940 ginnaaw daara yooyu mu taxawaloon nag di liggéey am na itim ay góor yàlla yum mu àndaloon doon liggéeyandoog ñoom nag ci daara yooyu góor yàlla yooyu itam bari na ci ñoo xam ne nii nag maam saaliyu faal nag seexal na leen ba ñu wër itam ñoom itam di defare ñu man caa ràññee ñuy wax sëriñ abdu xaadir faal man caa ràññee ñuy wax sëriñ baara Tayba Ñang man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Moodu Ndaak Faal man caa ku ñuy wax sëriñ Abdoulaye Guèye man caa ràññee wax sëriñ Waar Ñang man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Saaliw Loo ba tey ci mbooloo moomu maam Saaliw Faal doon àndal nag di liggéey ñu man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Mbàkke Loo man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Kodde Faal man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ Abdou Diop ba tey mbooloo moomu man caa ràññee ku wax sëriñ Gumba Saar man caa ràññee ñuy wax sëriñ Abdoulaye Cissé sëriñ Abdoulaye Mbay ba tey ma woon ca mbooloo ma ak ku ñuy wax sëriñ Moodu Anta Njaay ba tey maam Saaliw Faal dafa defar ñuy defare mën nañ cee ràññee ku ñuy wax sëriñ moor saar man caa ràññee ku ñuy wax sëriñ moor soxna loo ci dëkk na itam ci soldaar yi maam saaliwu fall yóbbu woon ci guerre mondiale 14 18 bi sëriñ njàtti géey sëriñ moor ngóone njaay sëriñ mbay jeng sëriñ cheikh sow ba tey mbooloo moomu àndoon ak maam saaliwu fall ñu mën cee ràññee sëriñ daam gay ñu mën cee ràññee sëriñ àndoy jóob sëriñ moodu njaay kasi ak kuñ ñuy wax Baye Moussa Ndiir ñii moom Serigne Saliou Fall lañ àndaloon doon liggéey ngir jëmmi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim ba ñu ci bare bari ci mbooloo mi maam Saliou Fall seexal na leen wala defar na leen ba ñuy defare ñooñu mu àndaloon di liggéey ngir jëmmi ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim taxoon na nag kii di maam Saliou Fall amoon relation ak autorité coloniale yi fi nekkoon ñu mën caa ràññee commandant bi nekkoon ci Ndar wala gouverneur bi nekkoon ci Ndar gouverneur boobu sax ci boppam mas naa seet si nag kii di maam Saliou Fall ci dëkk boobu di Daaru Xafoor ginnaaw bu mu ñëwee Daaru Xafoor doon doon sàkku nag ci maam Saliou Fall dëkkam boobu di daaru xafoor mu defal ko ko titre foncier muy six kilomètres carré wala douze kilomètres carré maam Saliou Fall nag keroog mi ngi doon waxal nag lii di commandant bi wala gouverneur bi di ko wax ne titre foncier bi moom mën naa ñàkk bàyyi ma rek ma doyloo nag lii ma suñ boroom jox ci wàllu suufa ndax dama dëkkandoo ak samay mbokki taalibe dama dëkkandoo gi itam ak samay mbokki julli te bëgguma leen a xañ seen suufa maam Saliou Fall nag loolu itam la mujj wax gouverneur bi waaye gouverneur bi nag mi ngi doon xamal jëfandikoo ci lii ma la wax nga gàntal ma naa la jox nag ay sàq yoo xam ni mën nga caa denc nag sa wàllu dugub ak yeneen ak yeneen sàq yooyu nag ba nga ni ku dem daaru xëfóor fekk ko fa muy diggante bi mu amoon nag relation gouverneur bi te gouverneur bi ganasi woon ko te ginnaaw ba mu ko doon sàkkoo titre foncier ko dëkk boobu di daaru xëfóor te maam Saliou Fall doon sàkku ci moom ne ko na doyloo rek la ko suñ boroom jox keroog bi gouverneur bi dellu loolee la ko joxoon muy ay sàqi weñ sàqi weñ yi ba nga ni mi ngi daarul xëfóor man Abdourahmane teg naa sàq ya itam am na ci yoo xam ne nii laal naa leen maam Saliou Fall itam am na nag li ñu tudde aw photo ndax benn photo la masa photo wu photo ba ma ngi ca ànd ak doomam jii di sëriñ Assane Fall Awa Jaxate ak taalibeem bu ñuy wax sëriñ Daam Gay ak beneen taalibeem bu ñuy wax sëriñ Cheikh Ndiaye Gaaya ñoom ñeent nag ñoo àndoon ca photo ba bañ koy photo wu nag ci dëkk boobu nag di Daarul Xafoor kii di maam Saliou Fall nag ci guerre bii di 14 18 itam yabaloon na fa ay soldaar comme ni ko mag ñëpp defee ci ndigalul ku baax ki sëriñ Touba Seexul Xadiim mu yabaloon ku ñuy wax sëriñ Moodu Ndiaye Daawuda ak sëriñ Saliou Diouf ñuy wax sëriñ Amar Gueye ñoom ñett ñi nag kenn ku ne sab taaw nuyu naa ko ngir nag ñu dem ci guerre mondiale boobu nag aar nag réew moomu nag di France ba tey ci liggéeyu maam Saliou Fall dëkk boobu di daaru xafoor tam goroon ko féete woon fa ba noon na fa ab teen teen ba nag maam Saliou faal daana wax ne guddik tamxarit gu jot ndoxum sam-sam moom moo cey génn ba tax na lool ñi miin daaru xafoor miin teen ba daanañ def guddik tamxarit gu jot ñu dem rooti ca teen ba ngir barkeelu ci ndox moomu ba nëgëni sax teen ba nit ñaa ngi ci barkeelu ndax loolu dem teen ba xam nañ ne guddik tamxarit la ndox may saf wuute nag yeneen guddi yi wala yeneen bëccëg yi lu muy saf teen boobu nag maam saaliwu faal jajj faal la ko tudde woon ba nëga ni sax teen ba jajj faal lañ koy wooye mi ngi ci dëkk boobu di daaru xafoor daaru xafoor googu itam ba tey képp koo xam ne nii nga tu say mbokk ci feebar bi ñu tudde feebaru xel wala kuñ ne ay rab moo ko dal ku mu masaa dal buñ ko indilee maam saaliwu faal ci diir bu néew ay mbokkam jotaat ci muy dox jëf comme nag ni ko doomu aadama yépp nag nëga ni daarul xafoor itim lu baree bari ci njabootam wala ñu takkoo takku ci njabootam itim ba nëgëri dañuy yëngutu ci wàllu googu te ku fa yóbbu ku mel noonu itim daa wér ndax seen waajur wa maam saaliwu fal ku ci xarañoon la xarañ googu mu ci xarañoon tax na itim hôpital yu mag yi nekkoon ci mileem réew daanañ liggéey ak maam saaliwu faal ci feebar boobu di feebaru xel ku amoon relation la nag ak mag ñim bokk lan ëttub ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim moom maam saaliwu fal ndax bi mu jaayanteeg ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim seex ibrahima saar njaañ la ko na ci loxoy Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ la jote ngërëm ci ndigalul ko baax ki Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim loola itam taxoon na maam Saaliwu Faal ku fonkoon jëmm ji di Cheikh Ibrahima saar Njaañ la ba tax na itam tudde na doom itam kii di Cheikh Ibrahima saar Njaañ Cheikh Ibrahima Sarr Faal mi ngi fi woon te Cheikh Ibrahima saar Njaañ la ko faye kóllëre yooyu leen Seexul Xadiim boole woon ñoom ñaar muy maam Saaliwu Faal ak Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ tax na itam kii di Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ faboon na doom ju ñuy wax soxna Aminta Sarr jébbaloon ko maam Saaliwu ngir mu dëkkoo ko Sarr moom bintu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ amut ak doom nag kii di maam Saliou Fall waaye nag ku yéeme la woon moom soxna Aminta Sarr bintu Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ ndax maam Saliou Fall bu masaa di faj nag lenn ci ñi nga xam ne seenum xel matul wala liñ tudde taalibey junne yi suñ masaa ñëw ci maam Saliou Fall soxna Aminta Sarr mii la leen daa booleel sëriñ ndaam Abdourahman Lo wóllëreem la woon xaritam la woon te ku maam Saliou Fall fonkoon la ba tax na itam na doom itam kii di sëriñ ndaam Abdourahman Lo ndax ki toog xalifaam jamono jii ñuy waxee ak yéen sëriñ ndaam daam faal la te sëriñ daam faal moom sëriñ daam abdourahmaan loolu la ko tuddee ba tax na itam bi maam saaliyu faal génnee àdduna doon na sàkku ci njabootam wiiri wiiri itam nañ ko jaarale ci dëkk boobu di ndaam daanu xalimul xabir ba wanale kook sëriñ daam abdourahmaan loo loola itam tax na sëriñ daam abdourahmaan loo ñaanal na kooku nag di maam saaliyu faal yabal njaboot gi itam ñu denc ko ci tuuba ci bëgg-bëgg nag bu maam saaliyu faal nag sàkku woon nag ci njaboot gi sëriñ daaru asar njaay itam wóla réew maam saaliyu faal la benn waajur wu jigéen di soxna Assu Jóob moom soxna Saynabu Njaay bi matee dem kër sëriñ Daaru Asan Njaay lañ ko jébbaloon te bokk guñ bokkoon ëttub Xaadim Rasuul bi itam tax na kii di maam Saaliwu Faal tudde na ko doom ndax sëriñ Asan Faal Awa Jaxate mi ngi fi woon te maam Saaliwu Faal sëriñ Daaru Asan Njaay la ko faye yeneen mag yi mu bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ Tubaa Seexul Xaadim itam kasaalika ku mel na sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke maam Ceerno Ibrahima Faati Mbàkke ndaamal la ak maam Saaliwu àdduna te ñu leen di fàttaliku cheikh mamadul faadal mbàkke moo sàkk woon ci njabootug maam saaliw faal di leen wax ne rakku cheikh ibrahima seexul xaddiim ñoo war a bokk benn bis bu ñu leen di fàttaliku kon loolu moo waral fukki fan juróom yu ne ci weeru Shahbaan ñaari màggal yooyu di benn ku amoon relation la ak magam jooju di maam cheikh ibrahima faal lamp baabu muridiina ndax ñoom ñaar ñoo bokk soxna Seynabu Njaay te bari na faneen itam fu ñu jaar ci wàllu ay relation ñoom ñaari jëmm yooyu loolu itam taxoon na doomu maam cheikh ibrahima bi ñu tudd sëriñ abdou sakkoor faal Fall la yaroo ci dëkk boobu nag di daarul xafoor magam jooju itam di maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ñoom ñaar ñoo bokk fu ñu tëddaale ci armeer yu mag yi ndax seen diggante fukki mètre rek moo dox ci diggante bi muy diggante barabu maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina ak barabu Serigne Saliou Fall ba tey digganteem ak magam maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina soxna Awa Jaxate mu meññ Serigne Assane Awa Jaxate kiri Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina moo ko a dëkkoo ba tax moo meññ Serigne Basiiru Fall bu Cheikh Ibrahima Fall lamp lamp baabul muridiina seex aadama géy bokk ci jàmbaar yi njëkk a jaayante ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim kii di maam saaliyu faal tudde na ko doom ndax maam aadama faal mi ngi fi woon te maam saaliyu faal seex aadama géy la ko tudde woon loola itam tax na rakk seex aadama géy bii di seex ma baabu géy wala réew sëriñ saaliyu faal la woon sëriñ moor kumba kan bokk itam ci jàmbaar yi toppoon ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim wala réew maam saaliyu faal la woon seex ma sàmba mbàkke di rakki ku ki sëriñ tubaa seexul xadim ku soppoon sëriñ saaliyu sëriñ ku soppoon Cheikh Massamba Mbàkke la ba tax na ñoom ñaar daanañ seetante saa su ne sëriñ Moor Faati Ture ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ci mag ñi doomu xaadim rasul itam kasaalika ku mel ni Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ndax sax Mbàkke nag la génne nag lii di àdduna ci digganteem ak Cheikh Mamadou Moustapha Mbàkke moom itam ba tey bi ñuy liggéey jumaa ji maam Saliou Fall bokk na ci ñiñ sase woon ndox mi kon relation amoon na ko mook Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam kasaalika Cheikh Mamadul Faadal ya ab oto oto boobu maam saaliw faal joxoon addiya kiri cheikh mamadul faadal mbàkke njaareem nag la ko joxe addiya oto bi kere biñ koy jële daaru xafoor di ko yóbbu njaareem sëriñ xaasim faal di doomu maam saaliw faal ak sëriñ abdu sàkkoor faal di doomu maam cheikh ibrahima faal lamp baabul muridiina ñoo yóbbu oto ba njaareem oto ba itam ab fiyaat la woon fiyaat boobu nag bi muy nekk ci loxoy maam saaliw faal laataa mu koy jébbal cheikh mamadul faadal mbàkke doomam ji di sëriñ asan awa jaxate faal mooy ki ko daa dawal mu jébbalee ba nag cheikh mamadul faadal sàkk woon ci sëriñ Assane Awa Jaxate moom ne ko duutoo ma dawalal ab oto ba tey digganteem ak Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke bis bii nag ñuy fàttaliku maam Saaliwu Fall di fukki fan ak juróom ci weeru Saxbaan Cheikh Mamadou Fadal Mbàkke moo jox njaboot gi nag bis boobu kon ñoom ñaar daanañ bàyyante xel sëriñ Touba Cheikh Saalihu Mbàkke mas na ñëw itam ci dëkk boobu di daaru xafoor seet si woon nag kii di sëriñ Saaliwu Fall keroog bi muy dellu sëriñ la ko jox addiya fasoo ku ñuy wax idda mbeng moo ko jébbaloon sëriñ Saaliwu Fall nag addiya ginnaaw bu ko sëriñ Touba Cheikh Saaliwu jébbalaat fas wa ginnaaw sëriñ tubaa seex saaliyu mbàkke sëriñ tubaa seex abdu xaadir mbàkke ku fonkoon dëkk boobu la di daaru xafoor ba tax na ñaare sax su masaa ñëw ci dëkk boobu di daaru xafoor wala mu jaar fay dem dana wàcc na ak tànkam dox nag ci dëkk boobu di daaru xafoor cheikh mahamadou lamine baara mbàkke moom cheikh mahamadul faadal mbàkke moom itam néew na lool ci dundam mu toog lu mat fukki fan ak juróom te demul daaru xafoor ngir barkeelu teg tànkam nag ci suuf soosu kon ku amoonuk ak mag ñim ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim ngir jëmmi xaadim rasuul ji suñ mbokk yeneen tarixa yi itam maam saaliyu faal ku amoon ak ñoom itam relation la rawatina nag seex bu kunta nag bu njaasaan ndax dafa amoon bis benn taalibeb seex bu kunta bu njaasaan nekkoon nag ci réew yu sori yi nga ja gis nag kii di seex bu kunta te munta ñëw nag ci réew mii nag di senegal mu dem nag fa boon xaalis ak lii di urus ak or ne dafa bëgg a jox nag sëriñam boobu nag di seex bu kunta addiya ginnaaw bu taalibeem boobu nag dajalee koor wa dafa faboon xaalis ba nag sànni ko ci géej gi ne def naa ko addiyey seex bu kunta addiyey jooju nag aw jën moo ko mujj wann jën wa nag ku ñuy wax soxna assu jóob nekkoon soxna sëriñ aadama jóob sëriñ aadama jóob nag ci mag ñi toppoon maam saaliwu faal nag la bokkoon nekkoon itam ci biir kër maam saaliwu faal ginnaaw bu soxna assu jóob moom nag demee marché moo jënd jën wa ginnaaw bu mu jëndee jën wa nag indi ko ci kër gi maam saaliwu faal kero laataa ñuy waas jën wa jóge na nag fi mu nekkoon nag ñëwaat nag sàkku ci soxna assu jóob moom mu jaay nag ngir da ko wax ne nag damal duggiwaat maam Saliou Fall nag jël na jën woow defar ko nag ba mu jekk mu woo taalibeem bu ñuy wax Bamba Samb Bamba Samb itam nag ci kër ga la nekkoon di ko wax ne jëlal saxaar gi boo demee nag ci njaasaan ci seex bu kunta nga joxal ma ko nag jën wii fekk na nag kii di sëriñ bu kunta wax ay taalibeem ne leen ku ñëw di ma laajca bàyyi leen ko mu egsi ginnaaw bu sëriñ Bamba Samb nag eggee nag ci dëkk boobu di njaasaan nag ba laaj kii di seex bu kunta bañ wan ko seex bu kunta ginnaaw bu mu nuyoon teg seex bu kunta ba pare nag moo la yónni seex bu kunta nag nee na ko xanaa saaliw moo la yónni mu ne ko waaw mu ne ko saaliw de neewoon nañ ma du nit waaye gëm naa ko tey jii ndax kat lii nii sama taalibe bu nekkoon ci réew yu sori moo ma gëj a gis doon ma jox nag addiya addiya ja nag aw jën moo ko lekkoon jën woowu nag moom la saaliw faal fam mii jox la ko ngir nga indil ma ko lii tim maam saaliw faal def na ko ci digganteem ak seex bu kunta loolu tim tax na waa njaasaan fonk lool daaru xafoor ba tey it am na bis maam saaliw faal ci dëkk boobu di tudde woon waajuram di soxna Seynabu Njaay ginnaaw bu yendoo bojj dàgga ja nag ba noppi keroog biñ ñëwee na ngir bëgg maam Saliou Fall ñaanal leen bi mbooloo mi teewee ngir di sàkku ci moom ñaan ndax lam leen doon liggéeyloo kat pare na ginnaaw bu maam Saliou Fall xoolee nag lii di njaboot gi nee na leen mbooloo mi manqué na kenn ñépp xoolante ci seen biir di ko wax ne sëñ bi kay waa dëkk bi ñépp a ngi fi ndax kenn desul mu ne leen axa kay am na kay ku manqué dem leen xoolaat ko ginnaaw buñ delloo nag lañ gis ca mbooloo ma maam Saliou Fall di leen xamal ne lii kay mooy li mën a nekk ndax faañang nduur moomu diiru bi mu nekkee ci sama mbojj meeg léegi malaaka yi ñi ngi toog nag ci sama mbagg mi ngir di ma laaj ruwoom googu lii itam maam Saliou Fall def na ko ci dëkk boobu di daaru xafóor ci mbojj mum santaane woon ci taalibeem bu ñëwoon ca mbojj ma malaaka yi soxla ruugi te la muy liggéeyal maam Saliou Fall moom moo tax itam jëluñu ruwoom soxna faañang nduur moom moo fi mujj sax kii di maam Saliou Fall ginnaaw bu maam Saliou Fall làqoo a làqu ba ñuy wax sëriñ Modou Sarr taalibe maam Saliou Fall la woon sëriñ Modou Sarr moom moo meññi ku ñuy wax sëriñ Gallay Sarr ak ku ñuy wax soxna Xadi Sarr dafa am bis nag ñëw ci maam Saliou Fall di ko wax ne sa taalibe boobu di sëriñ Modou Sarr génn na nag lii di àdduna maam Saliou Fall bisub keroog mi ngi wax ne loolu de munta am ndax suñ borom musta jël kenn ci sama roog taalibe te tàgguwuma te géttug Saliou Fall malaaka yi tim duñ ci ñëw mukk itim te tàgguwuñ ma kon Modou Sarr moom moom munta génn àdduna ci la wooloo taalibeem boobu di Bamba Samb di ko xamal ne kaay ndegem xoolal ma Moodu Sarr jox ko nag tim lii di saafara te di ko wax ne soo demee na nga jox ko Moodu Sarr mu naan ko ginnaaw bu sëriñ Bamba Samb indee nag ñaan googu ko maam Saliou Fall joxoon ngir mu jox ko taalibeem boobu di sëriñ Moodu Sarr ginnaaw buñ ko ko solee sëriñ Moodu Sarr tis na ginnaaw nag bu buñ ñëwaatee ba wax ko maam Saliou Fall ne ko Moodu Sarr jóg na mu ne loolu kay mooy li man a am waaye suñ borom du dugg mukk ci géttug Saliou Fall te tàgguwu ko te loolu musta am te du ko def lii itam maam Saliou Fall itam jaar na ci Dakar maam Saliou Fall am na benn taalibeem bu ñuy wax sëriñ maam Makumba Njaay mas na ñëw ci maam Saliou Fall di ko wax nag kiimaan gu mu gis ndax dafa mas a fekk benn naarub gànnaar muy nag lii di furno te ma ngay xel yi nag di naan attaaya ginnaaw bu mu ñëwee nag kiimaan googu nag mu netti li ko sëriñam boobu di maam Saliou Fall maam Saliou Fall nag mi ngi doon wax sëriñ Makumba Njaay moomu di ko wax ne ànd ak ku garab doxi say soxla ba ñibbi siwaat garab gi nekkaat fa mu nekk taxuta egg nag ci suñu boroom am na bisitim maam Saliou Fall ñaari taalibeem bi yooyu mbool ci dëkk boobu di daarul xafoor ginnaaw ñaari taalibe yooyu buñ fa dajee ba noppi nag maam saaliyu faal nag yeewi woon na kenn ka mu ñibbi ka ca des mu ne ko toogal xaar ma dafa am lu ma soxla ci yow ka toogoon xaar ko nag fa la nekk itim nag ba at ma delsiwaat ca déwén sa kam fa fekkandool wala kam fa dajaloon dool nag indiwaat nag lii di mbool joxewaat ko addiya ginnaaw buñ fa fekkante waatee nag wala ginnaaw bu ko fakka ca des fekkeetee doon na ko wax ne xanaa suñu borom de moo mën a boole ndax heure bii daaw maa yow ñoo fi dajee woon heure bii ren itam ñaar ñoo fi dajee waat kooku kay di ko wax ne man de daaw bañ fi dajee ba tey delluwuma ndax man sëriñ bi dafa maa téye ginnaaw bu ñu waxtaanee ba noppi ci wàllu waxtaan woowu maam Saliou Fall nag woolu na leen ba ñëw mu di ko xamal ne yéen ñaar dajee wu leen fi waaye kii nag man maa ko fi téye woon daaw xaar ma xam ne bu ko malaaka ma gisul xanaa du ko jël si fii nag ngir fas yéenee jël si bakkanam loolu rek ma moo taxoon ma téye ko kooka nag ba nëga ni ay sëtam nag ñu ngi ziyaare si daaru xafoor ba tey ci jëfi maam saaliyu faal toog nañ foofu ci daaru xafoor nag yooyu ci géttam googu mu amoon ci daaru xafoor nag wi mu woon saa daaru maam saaliyu faal toog na ci jataay mook ay taalibeem nag wow ñu tudde woon saa daaru ñëw ba jub maam saaliyu faal nañu ñaari yoon mag ñi bëggoon a dàq nag wi mu leen di wax ne xam naa lim ma wax nag wi daf may fàttali na juróom-ñaari weer rek moom ma desee ci kaw suufa mag ñi def takk waxi sëriñ saaliwu faal jooju bi mu amee juróom-ñaari weer la génn àdduna ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu jëmm ji di maam saaliwu faal def ndax ku kiimaane la woon ku yéeme la woon mu wii nag des nag ci dëkk boobu nag mu goroon di daaru xafoor ba nim génnee àdduna ci atum 1940 moom rakku cheikh ibrahima fall lamp baabul muridiina bi doomu sëriñ ahmadou roqaya faal bi ak kii di soxna saynabu njaay di maam saaliwu faal mi génn àdduna bisub alxamis fanweer wi di weeru gàmm ci atum 1359 ci gàddaay gi alxemes ñetti fani gàmm ci atum 1359 ci gàddaay gi dëppoog muy jeudi 11 avril 1940 jeudi 11 avril 1940 ci dëkk boobu mu goroon féete woon fa nag di daaru xafoor ci bërëb bi mu daa xal wa daa fa jaamu suñu boroom di béyti keroog bi muy génn àdduna ci dëkk boobu di daaru xafoor moom maam saaliwu faal ci bëccëgu ñetti fan googu ci weeru gàmm woowu doomam jii di sëriñ asan awa jaxate faal maa fa woon ak doom doomam ji di sëriñ Moodu Anta Fall ak taalibeb Cheikh Ibrahima Fall bi ñuy wax sëriñ Moodu Anta Fall taalibeb Cheikh Ibrahima Fall la woon Touba Fall itam la dëkk moo taxawu Cheikh Ibrahima ba mu génn àdduna moo taxawu itam rakkam ji di sëriñ Saliou Fall ba mu génn àdduna ñett ñii moom bisub keroog bi maam Saliou Fall di génn àdduna fa la leen fekk ca kër ga ginnaaw bu mu génnee àdduna moom maam sëriñ saaliw Fall sëriñ Yaara Mbay bokkoon ci jàmbaar yi toppoon maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul moo ko taxawu moo ko jullee ñu ko boroomam sëriñ yaara mbay jullee ba noppi nag lañ ko yenoo nag ci dëkk boobu nag di daaru xafoor jaarale ko ndaam daaru xalimul xabir ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo ndax loolu la maam saaliwu faal sàkku woon nag ci njabootam bu paree nag nañ ko jébbal boroomam nag ci dëkk bu sell bii nag di tuubaa ca wetu magam jom maam ibrahima faal làmp baabul muridiina bisu keroog bi mu génnee àdduna ci dëkk boobu di daaru xafoor ñii nag ñoo ko yenoo daaru xafoor ba indi ko nag ci dëkk bu sell bii di tuubaa ñu man cee ràññee doomam sëriñ ak doomam ju ñuy wax sëriñ muudu anta faal ak ku ñuy wax sëriñ faat ma faal ak ku ñuy wax sëriñ abdu awa njaay ak ku ñuy wax sëriñ cheikh njaay gaaya ak ku ñuy wax sëriñ ba ñan ak ku ñuy wax sëriñ masayer caam ak ku ñuy wax sëriñ masamba njaay wàqi ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ca mbooloo ma ñoo ko yenoo daaru xafoor ba ci dëkk bii di ndaam daaru xalimul xabiir ñu wan ko sëriñ ndaam abdurahmaan loo ndax kat loolu la maam saaliw faal sàkku woon nag ci njabootam ginnaaw bu ko jaaralee ci loxoy sëriñ ndaam abdurahmaan loo ba a jëlee borom daaru xalimul xabir yan waat ko nag fas yéene koo indi nag Touba ci wetu magam ja maam Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina keroog nag biñ koy denc nag ci wetu magam ja ñi nga xam ni ñoom ñoo doon gas nag fi ñuy denc maam Saliou Fall lu yéeme nag moo xewoon keroog ca barab ba ndax keroog luñ doon gas rek xaalis di génn ca barab ba xaalis boobu nag doomam jir ji sëriñ Assane Fall awa jaxate moo ko jox ku ñuy wax sëriñ ma sayar caam ngir wax ko mu dem jënd ca parfum ñëw nag ñu defaat ko ci ba lii nag xew maam Saliou Fall maam Saliou Fall nag ay xalifaam nii la tëdd ci la 11 avril 1940 ba la 27 mars 1959 Serigne Modou Saliou Fall moo njëkk a nekk ab xalifaam Serigne Modou Saliou Fall moom ku baax ki Serigne Touba Seexul Xaddiim la ko fayee ñaareelu xalifa Serigne Saliou faal mooy ku ñu wax Serigne Modou Maam Fall Saliou moo ko wuutu ci le 27 mars 1959 ba le 17 novembre 1979 Serigne Modou Maam Fall Saliou moom ku baax ki Serigne Touba Seexul xaddim la ko faye itim ba tey ba tax na sëriñ saaliwu faal tudde na lu tolloo ñeenti doom ku baax ki sëriñ tuuba seexul xaddim ñetteelu xalifa maam saaliwu faal mooy kam faye sëriñ daaru asan njaay di sëriñ asan faal awa jaxate moo toog ñetteelu xalifa maam saaliwu faal ci le 17 novembre 1979 ba le 26 août 1997 ñeenteelu xalifa maam saaliwu faal mooy ku ñuy wax sëriñ abdu faal ndakaaru moo toog xalifa ci le 26 août 1997 ba le 12 décembre 2013 juróomeelu xalifa maam saaliw faal mooy kam faye sëriñ ndaam abdourahman loo di sëriñ ndaam saaliw faal moo toog xalifa ci le 12 décembre 2013 ba nëgëni ñu koy ñaanal suñ boroom guddal aw fanam te yàggal ko ci toogaayu maam saaliw faal ba te defal ko barkeb turandoo wa di sëriñ ndaam abdourahman loo ak mbooleem njabootug maam saaliw faal gi moo xam góor ak jigéen ak nuñ ci man di bokke maam saaliw faal nag am na bis ñu ko daa taxawu ci lu ñu ak màggal ndax ko màggalal ci ñetti fannu gàmm googu mu génnoon àdduna ci atum 1940 màggal nañ bis boobu ba ci xilaaf ak mu mohamadul faadal mbàkke ci xilaaf ak cheikh mohamadul faadal mbàkke nag bi cheikh mohamadul faadal mbàkke nag di soppi nag yenn ci bisu mag ñi la soppi waale bis boobu ci la xamal njabootu maam saaliwu faal di leen wax ne rakki cheikh ibrahima faal ak rakki xaadimu rasuul ñoo war a bokk benn bis bu ñu di fàttaliku nañ ko yóbbu ci fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu kon lii moo jële màggalug maam saaliwu faal ci ñetti fani gàmmu yóbbu ko ci fukki fan ak juróom ci weeru baraxlu boobaak léegi nag ñu ngi koy màggal ci at mu jot nag ci weer woowu ci ndigalul cheikh mamadul faadal mbàkke moom mi soppi woon bis ba boobaak léegi itam na ku fi nekkal xaadim rasuul ànd nga ci bis boobu ñuy ñaan ci doomu soxna Saynabu Njaay ba yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gi mu fi bàyyi li di jafe-jafe réew mi itam yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey